vraiment maa ngi nuyu Sénégal yëpp ci naxarlu tam lu xew Casamance ñun Ziguinchor lañ doo Ibou Camara lañu jàngee vraiment lu xew Casamance neexuma mais vraiment du affaire politique nañu bàyyi affaire politique parce que Doudou Ka ak Sonko ñoom ñaar xeexuñu kon sone su Casamance xale yi ndawu Casamance lay wax nañu yeew ñu bàyyi xuloo ñu bàyyi xeex parce que xeex moo tardé raison de Casamance ba kenn defu fa investissement ba ñu fa dëkk sax defuñu fa dara tabaxuñu fa defuñu fa dara parce que xeex la kon boog yàlla nañu yàlla musal si xeex ñun Casamance doy nañ sëpp ñu jeunesse su Casamance tey jeunesse bi nan la def ba développer Casamance ñun loolu la loolu moo ñu war ñun waa Ziguinchor ñun waa Casamance. nañu booloo nekk benn liggéey suñu réew région yi Sénégal yëpp raw nañu tey tourisme Sénégal Casamance moo taxoon lan moo ko waral mu retard dem ginnaaw Mbuur raw seen saint raw ñu parce que xeex moo am suñu réew kon book maa ngi ñaan jeunesse su Casamance nañu bàyyi xeex amul benn njëriñ ak xuloo parce que Doudou Ka ak Sonko ñoom ñëpp doomu Casamance lañu développé luy développé Casamance moo tax ñu jóg kon boog ñun xale yu ndaw Casamance nañu nekk benn defar suñu réew ñun loolu mu ñu war a soxal mais pas ñu indi ay haine si euh, les jeunesse kii di diw defoon na ma lii de defoon na ma ngeen indi affaire u haine affaire u baaxul man Casamance vraiment lu ma loo gis may xeex Casamance moo tax may xeex pour ñu développer suñu suuf bi lépp luñ ci béy mu taxaw lépp luñ ci béy day baax kon boog jeunesse bi nañu dem liggéey ñu bàyyi xuloo ñu bàyyi xeex parce que loolu moo tardeel Casamance zone de tourisme la man loolu laay ñaan Casamance nañu xool réew mi du koy développé lii dama rus trop parce que ñun waruñu démarrer campagne ñëwagul sax ñuy wax Casamance lu nekk ñuy wax Casamance kon jeunesse bi ngir yàlla xool leen képp Doudou Ka Sonko muy man muy keneen ñun ay doomu Casamance lañu ñun ñëpp benn lañu ñun de wax dëggee la fu ñu dem soo demee France doomu Casamance yi benn lañu soo demee Italie doomu Casamance yi benn lañu kon boobu kon lan moo tax ñun ñu nekk biir Ziguinchor di xuloo di nga xaay lan ma ko fi jar non lu ñu def vraiment baaxul te nañ ko bàyyi te attention les justice il faut mu wax ci te vraiment procureur bu nekk Ziguinchor amul caaxaan. dafay liggéey te procureur bi dina ko réglé man maa la wax lii